asalaamaaleykum àdduna wërngal këpp bi seetaan Tektal TV euh, di leen wax ne yéen nii ngi ñuy gisee euh, ñun màggal gu wóor lañ def fi jara dugg la dugg fi mat a dugg la dugg li mat a wane la ñu wane. gis ngeen léegi xale yu jàng alxuraan ku gis xam ne ñu ngi jógee kër sëñ Baara moom sëñ Abdou Lahad nga xam ne que euh, sëñ Abdou Samad Chan bi ni mu waxee ni kii ku ko gën moom yombul gën koo baax yombul gën koo farlu yombul ndax. kersa gi ak fulla ak fayda gi ak fonk alxuraan gi ak maandu gi euh, ñu ngi ci Touba Belel euh, ku man rek dañuy topp ñun nag moom du ñu yem ay côté 28 ak Touba Soura ak Madiana ak Ndaama ak Jannatu ah, ñun dañuy dugg fii jar a dugg di jaajëfal sëñ Abdou Samad Mbacke sooy bu nga xam ne que mënuy teg ci yoon moo tax ñuy am màggal goo xam ne télé Sénégal yi moom yéen a nangu ne ñun ñooy pay Tektal TV mooy pay ndax Pastef bi ñu wane ci màggal gi. kenn gisu ko fenn ñun ñoo dem fépp fi mat a dem waaw fu ñu demul rek dinañ jëli euh, ka nga xam ne que dina représenté fële boo gisee sëñ Abdou Lahad doomu sëñ Abdou Lahad ñu jël ko euh, waxul sax ndax moom jëf la gën a mën a ci wax mu sëñ Baara mais sëñ Baara googu tax ñu jël ko am na lu muy fee ci guy mbind kon Tektal TV dafa tege ci axe fii ñu nekk nag noonu mooy néegu biiru sëñ Abdou Lahad Mbacke ibnu Serigne Touba Khadim Rasoul euh, troisième xalif général de Mourides nga xam ne que yére ko gis ñu naan la ab Baay Laat sëñ Abdou Laat lay roy mooy tur ñu ngi ñaanal tamit sëñ Atou Diagne ndeysaan màggal gum fi nekkul dina wéetal ñëpp yal na ko yàlla xaare àjjana te yokk ay leeram te tas ci barkeem te aaru njabootam. Euh, ni ñu nekkee ci Touba Belel sëñ Abdoulaat Mbacke ak Pastef bi ak Daaray Kamil gis na bi mu jugee Daaray Kamil ñu ngi tudd sëñ Abdoulaat ci jëfam ju rëy sëñ Abdoulaat ci li ñu koy waxee ni ko sëñ Modou sëñ Galas moom sëñ Modou moom sëñ Abdou di waxee ne bu mu demee ba nit di sañatu la tifli sañatu la sànni mbalit sañatu la kii mooy loolu ci Touba sëñ Abdoulaat am na lum liggéey lu rëy ci Touba ak yar nit ñi. Euh, ci ànd ak dëgg ak wax lu leer ngay dégg xam ne lii dañ ko war a bàyyi ak lii dañ ko war a def mu ànd ak Pastef ak fulla ak fayda kon sëñ Abdou Lahad Mbacké yàlla na ko yàlla fayal ci lim liggéeyal waajuram Serigne Touba Xaadim Rasul euh, kon sëñ Sidi moom sëñ Abdou Lahad dañ koy ñaanal mu yàgg fi lool te ànd ko wér ak njabootu señ Abdou gépp ku lim ndax ku leen xam xam leen ci Pastef ak fulla ak